Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, veuillez recevoir ma profonde gratitude pour votre engagement, votre contribution, votre soutien indéfectible à l'endroit de l'éducation de base des jeunes et des adultes et pour la promotion des langues nationales, comme vous le faites partout ailleurs dans tous les secteurs de l'éducation. Monsieur le ministre, merci. Ce matériel qui sera remis aux IA par le ministre de l'Éducation nationale illustre l'engagement de ce dernier pour le secteur de l'Epja. Je reste donc convaincu que le sous-secteur de l'EBJA, par l'usage des langues nationales, doit davantage jouer un rôle de premier plan dans les stratégies de réponse contre le Covid-19. tey jii dañoo ñëw pour ñu jébal ñu matériel bi nga la pour que classe d'alphabétisation, alphabétisation dans le cadre de PNEBJA puisse fonctionner. fonctionner matériel monsieur le ministre vraiment ñi ngi lay di féliciter say collaborateurs rawatina directrice alphabétisation di la xamal ne monsieur le ministre matériel bi inshallah dinañ fexé ba fep fu mu wara dem mu dem fa nuñ ko wara jëfëndiko jëfandikoo tamit dinañ ci taxaw pour que non ñu défé ko comme niñ ko défé won manam euh, biñuy wajal ubité reprise école yi CM2 yeeg ak classe d'examen tay ji cérémonie mi dafa am lu mu firndel dafa firndel en tout cas woné pas-pas ak cofeel gi nga xamné mom la suñuy kilifa directrice gëdd gi nga xam ne jox nañ ko alphabétisation ndax tey réew mënuñu def ay jéego ci éducation te dooleelu ñu alphabétisation tey jii fi may wax ak yow yéen monsieur le ministre vraiment processus bi yëpp pare nañ ko boucler nañ ko sélectionné nañ en tout cas ci transparence bu mucc ayib tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo war a diriger classe yi ak sous projet projet yëpp vraiment liggéey boobu yëpp def nañ ko li ci des rek mooy fexe ba classe yooyu door comme ni ñu ko defee ci yeneen classe d'examen yi tey jii monsieur le ministre maa ngi lay xamal ne lëkkaloo nañ ak direction alphabétisation pour que même classe passerelle yi nga xam ne am na ci ay quelques régions yu UNICEF wala yu paquet bi classe yooyu fexe nañ ba tey jii à travers ay stratégies yoo xamante ni académie bu ne daf ko utiliser ñeen ñi ay visite à domicile la ñuy def ñeneen ñi dañuy jël par cohorte yu ndaw te classe yooyu ñu ngi fonctionner bu baax te am nañ yaakaar ne fii ak ay semaine incha allah xale yi dinañ leen tester delloowaat ci système bi pour que éducation Sénégal mën a jëm kanam.